si sarvahamada Wa waffa bihi busura wa anjaza mawida Wa asra bihi adam wa safahu kada Jarat laylat al-isra izikira mukallada Wa man ka مدح بير المنتخى زاد إلى بيت الإله ناس واهب الإله مدح بير المنتخى زاد إلى بيت الإله ناس واهب الإله هب نبي للإله سورا زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله مسلما بدل لنا هلاه محمد فرد يفوه تسنيا وفا خجم خن والخدا يا مغنيا درجة المختار بمغسلي بها اختلال درجات رسولي كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلتي هو المتبع أحمدنا ما مهما مساء ولسوان ساح من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جمال يصف دراية طب غورغينينا تلن جامو جوغي نين سن كير اكسي نين سن كير كونتان نتي سن تي واي نين خم تي بس يي ني جيم ني بس بي سن بس لا Eh, arai kubisa nalam sori enfer ke alla ya alla wala ko ba barke ma neena mi ngi ñaan yalla yalla soti barke ci sen kaw yalla ya yal na yàlla wëral leen. yal na ngeen dund ba dund sàppi leen. yal na leen yàlla may alal ba seen xol set. yal na leen yàlla musal ci seytaane bi nekk diggante suuf ak asamaan. lépp lu ngeen bëgg di ko mbëbët ci kaw suuf yal na leen ko yàlla may ci darajati rasulullah kuréel yal na yàlla def ngeen di raw ci maas ci lii ngeen topp nii. ziyaara ziyaara ko ko ko fii. paragon mhm. allah. Mhm. yàlla butti mhm. ziyaar bi li ko indi dégg na yëngu-yëngu Afrique bi yëpp ziar bi li ko indi mooy ñaan yàlla suñu borom mhm. jàmm sotteeku ci biir Sénégal mhm. sotteeku ci biir Guinée sotteeku ci Afrique wërngal këpp lii mooy ndeyu ziara bi ñu ngi ci wàcce ay junne junne kaamal ak ay adadu yu yéeme yu gundoowee ko jàng ci adad yoo xamante ni day ay wirdu yoo xam ne yu zaay rek yu baati ne dinañ ko ci def ba mu mat sëkk. loolu koy def ba àll wax. góor ak jigéen bu fi yàlla indi. bu ñu egsee dinañ leen won ni lii ngeen war a def lii ngeen war a wax. Hmm. loolu pour yàlla wàccee fi jàmm gën a saxal jàmm ci diggante Sénégal ak Guinée ak Afrique yëpp. lii mooy mbiru ziar bi dal leen jàmm ñu ngi ñaan yàlla ziar bi fekk ni fekk ñun ñu nekk ci kaw jàmm ak salaam. ñaan yi kuy ñaan yuñ fi ñaan muy avant di pendant ak après yal na yàlla barkeel ñaan yi. yal na yàlla def barke ci yéen ci tànk yi ngeen ñëw yal na yàlla suwil barke yi. ci barke nitu diine yi fi jàll ak suñuy sëriñ yal na yàlla dolliwaat barke ci yéen sallallahu alayhi wa sallam jaaraama baaba albarka góor gi nee na moo mënatul wax léegi am na téeméeri at ak lu tegu lu bari macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah gannaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi ñuy euh, képp koo xam ne rek teew nga mm-hmm. waaye di jiital ci nuyu bi ak suñuy kàddu mbégte ci euh, sang bii ñu fi fekk lu mm-hmm. tax ma ne sang nag mooy li mag ñi di wax mm-hmm. mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla dëgg la mën nañu wax ne dañoo am tawféex euh, sa maam da daan wax ni tawféex mooy nga jóg di wuti di wuti junni. génn mm. daj fekk gis ko sa buntu kër. wallaahi te yaakaar naa ni euh, yombul ci jamono ji. Mm-hmm. nga gis euh, comme ni mu ko waxee léegi ku am âge bi mu am. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ne wax ji leerul ma ne ko bu ñu leerul xamu fu ji. wallaahi nag <laughs> sang bi ñu ngi lay ñu ngi lay ziar. Mm-hmm. ñu ngi lay ci ziar bu gën a kawe. Euh, ndax hasard amul. dañuy sant yàlla bu baax gannaaw bi ñu yàlla booleeg suñu kilifa yi ñu àndal. Euh, jiitu ci kii di maître Watt nga xam ni euh, dañuy dañ dañ lay dañ lay dagaan nga dolli ko ñaan moom mhm. ndax bu amee ñaan rek barkeem dina tasaare ci ñëpp ndax tàmbali na ko nag mhm. euh, doon na nit koo xam ni mi ngi ñuy tàggat mi ñuy teg ci yoon mi ngi ñuy yar mi ngi ñuy dolli xam-xam te benn xam-xam nit ku ko def ci bopp yaakaar naa ne mënu koo fay mhm. voilà donc kon bu yàlla dogalee mu teg ñu ci yoon jàngal ñu yar ak teggin jàngal ñu social ba tey boo ñu gisee koo gis moromam moo ko gënal boppam mhm. loolu nag yaakaar naa ni moom la yàlla dañuy wan ni rek mhm. wax dëgg yàlla ñu ci yoon bi ba tax mu mhm. womat ñu indi ñu ko kon nag euh, dañ lay dañ lay dañ lay ñaan nga ko moom ñaan googu doon barke bi wasaare ci ñëpp waaye ñaanal suñu euh, Uh, uh, formateur bi momit uh, maître pok momit and ci mm-hmm. wax deug yalla ñu doon ay kilifa yo xamni ñu nekk andal ñu dégg mm-hmm. ñu dégg ñu xam fu ñu wara jëm mm-hmm. ma sha Allah ak ñi nga xamni ñoy formateur yépp ñu lay ñu lay ñu lay dagan bu baaxa baaxa baaxa baax di contane ci téway bi fi di la wax ni la sa bis bobu dañ koy def suñu bis ndax comme ni nga ko waxee rek. Mhm. dañu cee boole. Mhm. te li nga wax ci bis boobu. ba tax maanaam lu lu sumb bis boobu. Mhm. yaakaar naa ni ku nekk da nga ko def si yëpp biir bopp. ndax jàmm Sénégal. jàmmi Guinée jàmmi Afrique dafa war a ñor ñëpp. kon nag yow bu la ñoree ba nga def ci yooyu. képp ku ci bokk. dina barke bi dina la was wasaare ci. kon nag ñoo ci war a jiitu. jiitu boobu nag moo tax ñu def ay jéego. def ay tànk ñëw ànd ak suñu kilifa yi. nga xam ne dañoo nekk ci liggéey nekk ci yoon. bëgg ci ku ñu ñaanal. bëgg ci ku ñu taxawu ba liggéey bi nga xam ne moom la la ñu dénk mhm. liggéey bi nga xam ni moom la ñu teg ngir bëgg ñu tamit mhm. jàmmoo ci yàlla mhm. loolu euh, tegu ci yoon yàlla yombal ko loolu nag yaakaar naa ni li ci gën a gaaw mooy lii xool mag ñi nga xam ni yàlla barkeel na xool mag ñi nga xam ni yàlla euh, ruus na leen ndax mag yàlla da ko ruus euh, di la ci sàkk nga dogal ñu ci ñaanal ñu ci nga xam amuñu sikk sàkk boobu léegi nag gannaaw mbir mi dafa yàgg dañu jox suñu benn maître Mansour moom nga xam ni yàlla baaxal la nekk suñu biir mu a ñàkk. di mhm. lay ziar bu nuyu di la ziara euh, ziara bi nag dañ lay ziara ziara istimdaadiya mhm. moo njëkk bi bi ci topp mooy ñi ñu àndal ànd bi bi njëkk mooy ànd ak mbooloo bi ñëw ziara la moo njëkk beneen bi ci topp mooy mottali kóllëre mhm. mottali kóllëre suñu diggante ak suñu professeur bi ak suñu mbokk ki nga xamante day ànd ak ñun di jàng loolu mooy moo mooy sabab bi ñëw ziyaara la ziyaar istim istimdaadiya waaye tamit ñëw mottali kóllëre mooy mooy sababu ñëw bi tey euh, di sàkkuwaale ci ci sa jëmm euh, ay ñaan yàlla euh, am na fu ñu bëgg a yegg am na fu ñu na fu bëgg a dem am na fu ñu bëgg a yegg xam naa wax bi du bëri ndax toogaay bi dina dina métti ci ci moom mm-hmm. li lépp solo rek ci teewaay bi mooy feddali suñu kóllëre bi nga xamante ni suñu mbokk yi ñëw nañ fa ñu feddali kóllëre gi euh, li ci topp mooy ñaan yàlla rek subhaanahu wa taala ndax yaakaar naa wax nañ lépp waaw euh, dañuy dollante rek nga xam ñaari kàddu yooyu li ñu indi ak li nga xamante ni ñëw nañ waaw euh, ñëw bi ram dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax jafe nañu ñu gis jëmm ju mel ni toog waaw yàlla rek moo lay dimbali nga am lu ñu mel kon buñ buñ ci buñ buñ ci am buñ fekkee lu mel nii. Mm-hmm. dañu ci sant yàlla subhaana taala mm-hmm. ñu xam ne ñun ñëpp am nañ ci yokkute. Mm-hmm. ñu xam ñun ñun ñëpp lépp am nañu yaqeen que ni ajo yi dina faju am nañ ci yaqeen bu wér. waaw donc xam naa ni kàddu yi du du mën a bëri. ndax ñi fi toog yëpp benn kàddu bi la. mbégte moo ñu fi indi. mottali ko kon euh, loolu daal lañ ci doon yokk rek. nga xam ne xam naa sama collègue bi wax na lépp mm-hmm. waaw ñaan yàlla lañ soxla mm-hmm. euh, insha allahu te moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala mm-hmm. yàlla yokk ko yàlla dëgëral ko yàlla guddal fanam gën koo yokk ndax teewaayam suñu njëriñ la ñun ñëpp kuy ñaanal kuy ñaanal waxuma dëkkam de mhm. waaye àdduna yëpp mhm. kon jar na ñu bàyyi ko ci réew mi moom it ñu ko di ko ñaanal yàlla mu sax kon nag yàlla yàlla defal dégg ak topp yàlla defal ñu tawfiq ak taysir bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah إلينا سراء المستقيم سراء الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اثر الناس لا يعلمون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 Euh, ñu ngi leen gërëm di leen sant du leen ñaanal gannaaw bi ma fekkee suma pap di suma sirim di suma xarit a suma sirim di doomam Cerno Bakar ànda Abdourahmane dalal leen bariw li ma ci dolli man tam Boubacar yegal na ma ko démb parce que moom tam ci suma doom yi la bokk suma njaboot la bokk yegal na ma ko démb euh, naa teew fekk mais fekk fekk na ma xaw a sori kon ñu ngi leen dénk suñu bopp dénk leen suñu papp dénk leen suñu sëriñ dénk leen liggéey bi kon ko waxtaan bi mag boo ko génnee mu def ko 10 minutes 15 minutes te xam naa yaramam fu mu toll munoon naa waxtaanee yem bu baax a baax mais jafal leen dalal leen e, jël góor gi jël liggéey bi dénk leen ko te yàllaa tax li ngeen ci mun ngeen jàppale ñu te yàllaa tax loolu daal ñu ngi seen disposition

ñun ah, di leen sant di leen gërëm ndax gannaaw yàlla ak bi yaakaar naa lii lépp ñoom la. wo ɓe wone rek yar bi nekk ci ñoom e diine bi nekk si ñoom diina wonka e ak bëgg waajur bi nekk ci ñoom e ak bëgg liggéey bi ñu nekkee ñu ngi leen ci sant bu baax woyɓe werdanade ci sant yéen ñii di ay waajuram wertanoo onon waaw loolu daal il fallait ñu dolli ko ci wo ɗuɗɗon ɓe nag li ñu jox nii wo ah, ah, ëpp na ndox lii moom dañ koy jéem a fexe rek def ko ci enveloppe rek mm. daal di ko denc suñu kees duñ ko mës a jaay woko ko jonnuɗon ɓe ɗo koko ɓe ƴettata ɓe waɗa e amboloku ɓe naada ka nder kees maɓɓe waaw ɓe barkinoro e ɗum ɗon ɗum ko massa dia illa yo ɓe ñamataɗi ɗum ɗo ɓe sendataɗi ɓe waɗay e ɗi kees maɓɓe loolu daal ñu ngi lay koy ñaar rek nga may ñu ko mhm. kii moom dañ koy def suñu programme rek dañ koy def suñu programme mhm. ndax euh, dimanche bi day fekk mu doon avant dernier dimanche bi balaa ñuy dem ci àll ba. pour mën a continuer foofu liggéey bi. parce que ci biir formation bi. balaa muy jeex. dañuy viser benn village. bu sori. boo xam ne nii balaa ñu fay dem. dañuy préparer ay ay dons. yàgg nañ ko def. daaw yóbboon nañu lu mat une tonne quatre cent matériel. muy ay yére muy ay bagage mm-hmm. buñ demee ci dëkk yi sori yi mm-hmm. bokk ko ak ñoom mm-hmm. loolu dafa bokk sunuy programme mais programme bu dimanche bi sunu programme la incha allah incha allahu rabbi lépp luñ ci mënti apporter lépp luñ ci mënti doole andi dolli ko ci dinañ ko andi dolli ko ci ba yéen ngeen gis ci seen bopp ñun ñu gis ci sunu bopp ñii ñëw gis ci seen bopp incha allah rabbi loolu moom dina am. incha allah euh, dinañ arrangé wu daal. Mm-hmm. ba daal bokk ci organisation bi. Mm-hmm. bokk ci euh, vraiment luy jëmmal. Mm-hmm. jaara bi. macha loolu moom incha allah rabbi dina am. jërëjëf maintenant nag dinañ ci liggéey. balaa muy ñëw yegg si. incha bu dee la veille wala deux jours avant. ñu yónnee benn délégation. ñu ñëw. pour mën a. xool liggéey bi. Mm-hmm. naka lañ koy naka lañ koy euh, voilà naka la ñuy àndee ak yéen. Mm-hmm. liggéey ko. Mm-hmm. incha allahu rabbi. loolu moom yaakaar naa ne euh, dina am. te yàlla na ci yàlla bàyyi ba booba. Euh, bu booba dinañ gis ni que li ngeen yaakaar si ñun. ak li ñu yaakaar ci yéen. yàlla bu ko yàlla tas. amiin yaa te programme bi bu ma ko xoolee déjà. en tout cas macha allah daal. bi ma xoolee thème bi. Mhm. gis paix entente solidarité. Mhm. yaakaar naa ni ñoom ñëpp buñ ko liiree ku ci nekk gis ko sa bopp parce que. Mhm. ci sunuy logo. da nga ciy gis paix. da nga ciy gis entente. Oh. da nga ciy gis solidarité. Ah, ah, ah. donc dafa mel ni thème bi. ñun ngeen ko andil. Oh, oh. xaw ma xam ngeen fi may waxee. thème bi. bi ma ko liiree dafa mel ni ñun ngeen di waxal. wala ñun ñoo leen jox thème bi. yàlla def na loolu. incha allah rabbi xanaa pour bañ a guddal rek. Mm-hmm. di wax ni que daal. Mm-hmm. contact bi nekk na pare. Mm-hmm. te lii du doon année bii rek. ñaan nañ yàlla ah, gën ko jëmmal. muy gën di law. mais avant daal. balaa xew bi di ñëw. contact yi comme c'est déjà état bi dinañ xam ban jour la ñuy ñëw pour def benn réunion de coordination. Mm, pour caler lépp. ñun ñu xam naka lañ ci taxawee. ak lan lañ mën a andi lan lañ leen mën a. tool yi incha allah